bi nañu docteur ba xamal na ministre de la justice ne Ousmane Sonko fi mu ne daa sonn bay waxtu yaramam itam day tàng ba yegg ci 40 degré mu boole ci di lox di wàccu ak ñàkk xam fu mu nekk di perte connaissance waaye procureur moom li ko jaaxal bés bi nee na mooy nu nu def ba lettre booba administration pénitentiaire bind ministre de la justice mujjee ci mbedd mi le quotidien ne loolaa tax procureur ne dafay ubbi ab enquête ngir ñu xam fu lettre ba seennee lettre booba seen yéeni kaay ma jambal jaañ bi nee na la muy xamle mooy Ousmane Sonko dafa sonn lool yaramam di tàng ba yegg ci 40 degré mu boole koog di wàccu le témoin ne te loola lépp nag danu ci indi ay firnde ndax ab document officiel lañu fësal yéerekaay bi samp sax aw laaj ne moo mbaadu état moo ni defee organiser fuite booba ngir am ca lu leer procureur moom ubbi na cap enquête vox populi ne ña procureur di rëbb mooy ña sennal booba lépp lettre buy le ni Ousmane Sonko sonnee Juan Branco naan Sonko kay bam sonnee dëgg mooy fukki fan ak juróom-ñaar weeru atum 2023 bés booba Juan nee tombee diyee lii lépp tax Alioune Tine ci yor yor bi naan Macky Sall dafa war a bàyyi Ousmane Sonko génnee ci kaso bi it képp kuy détenu politique moom Falla Fleur démb waroon naa génn ci kaso bi ndax ñetti weer yi nu ko daan tëdd na ko ba nuppi waaye yor yor bi nee na daa fekk ñu koy toppee leneen loolaa tax ñu karati ko yóbbu kaso te mooy li ko administration tuumaal ne dafa doon génnee ab bataaxal te awalewu ko fam war a aw boole ci di leen jéebaane chemin de la libération booba jamono ci boobale bi ŋàññee àq ak yelleef doomu aadama waaye itam ni réew mi doxee te teguwut ci yoon yéene kaay bi tegu ci yoonu élection présidentielle bi dem ak ñun ne nenu foofa daanu fa mujjee amal wot gi ndax dan doon jortu ñu tuxal bureau de vote yi xibaar bu réew mi quotidien dëggal nañu sëriñ xaa mujjee naa maye ñu woote foofa ca Touba ci élection présidentielle bi nu mal waaye réew mi nee na du dalal benn way politique fii ak ñuy yegg ci booba lépp jongante enquête na la ko waral mooy sëriñ Muntaxa dafa bëgg a jël yitteem yépp def ko ci liggéeyub sëriñ Touba gi gëm way politique yi kenn la fas yéene wut dalal ci way politique yooya rawatina candidat yi ci élection présidentielle bi nu dëkkmal 24 heures ne boobaleb élection mucc na ci bureau yanuy tuxal ca Touba ndax waa ministère de l'intérieur danoo gis ne délai bi dafay gàtt lool ngir ñu tuxal bureau yi rawatina ak li bërëb wotekaay yooya nekk ci carte d'identité ba nuppi nag ban ko xamalee xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ca la leen ni may naa leen kon ñu mën a woote fii ci Touba ci élection présidentielle bi nu dëkkmal élection booba nag docteur Abdourahmane Diouf la mu cay bëgg a nas bees mooy PROMAC di programme minimal alternatif commun bu opposition bi yëpp di bokk ngir faagaagal benn Bokk Yaakaar Malick Gakou moom ci yéenekaay yu bari ma ngay waat ne élection présidentielle bi bu amee deuxième tour du ca jàppale Amadou Ba candidat wu Benno Bokk Yaakaar googa di Amadou Ba Sud Quotidien gis na ko ci pression bu metti ndax yéenekaay bi nee na dundu gaa ngi cher te mënu ci dara gone yi jël gaal wuta di bitim réew it mënu ci dara mënut dara it ci ñaxtu yu bari yi ci politique yeeg liggéeykat yi te loola lépp am bi juróomi weer kott desee ci élection présidentielle bu l'observateur ne nu kaay leen ma wax leen beneen jafe-jafe bi Amadou parti bu tas tasar fii ñii aw fee waaye yéene kaay bi mel ni ku naan président Macky Sall ma nga cay sàq pexe ndax l'observateur mi ngi nuy xamal taxawaay bi président Macky Sall am ngir wàññi jafe yi ci biir APR jafe-jafe yi nuy dund ni bërëb liggéeykaay di doxee ak élection présidentielle bi nu dëgmal l'info nee na lii lépp secteur privé bi daf caa fas yéene yëkkati kàddoom ba ñëpp dégg ko booba jamono réew mi quotidien nañu njiital MEDES moom ma nga ca Paris fas yéene teewal mouvement mouvement des entreprises du Sénégal ci ñaar fukk ak ñaareelu forum économique bi nu jagleel Afrique réew mi quotidien nee na ndaje mu am solo mooma di dajale kilifa yi gën a mag ci àdduna bi ci wàllu koom fanweeri farag benn weeru octobre bi lay ubbi ca centre de conférence bu OCDE ca Paris président Mbagnick Diop ma cay teewal MEDES yéeni kaay bi neena dem na ca Paris boobaak léegi ay fan di dalal ay gan ak waxtaan ak investisseur ngir gën a jëmmaal taxawaayu MEDES solos ndaje ma réew mi quotidien nee na mooy xool naka la ñuy investir ci Afrique ngir yokkute am fi waaye yi gën a mën a jur njariñ booba jamono secteur avicole di yarum ginaar laas nee na ma ngay sukkuraak bokk na ca la ko faat ginaar yenuy jële bitim réew dindi ci Sénégal waaye itam jàppaleeg état gi yéex lool te waroon caa sukkandiku ngir suqali seenuk liggéey Walf Quotidien moo taxit fi mu ni chair de poule lañu amee ñoom ñi yëngu ci yarum ginaar yéene kaay biir joxoñ loraange yi ginaar yi ñuy jële ci bitim réew indi ci Sénégal mën a am ci wér-gu-yaramu askan wi ak itam jafe-jafe yi njeextal yi mu mën a am ci bileb secteur buy jur ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards at mu jot te juróom fukki junni nit di ca liggéey l'observateur booba jamono sëgg ci ndaw yeeg ni nu songee l'armée bi bëgg caa dugg bëgg liggéeyam laam déet yéene kaay bi nee na ñu bari bëgg doon takk dera leen ca yóbbu waaye ñeneen ay bunt yu leen mën a yóbbu feneen lañu ca gis le soleil booba jamono di nu wax njëndum alalu sengoor ga ca bitim réew naka la demee journal bi jox kàddu soleen lene commissaire priseur maanaam ka yoroon njaay ma mu ne émotion maanaam yaram gu daw moo tax Sénégal mujjee jël yëf ya Sénégal mooma nag weneen alalu Senghor am solo ko di ab soulage bu mu jëndoon atum 1956 rëcc na ko ca 2021 ña ngi ko jaayee genn wàll milliard ci xaalisu CFA jamono ji ma nga ca musée bu Quai Branly buñ sukkandikoo ci yéenikaay bi di Le Soleil booba jamono ca waaxi gànjol ab gaal suux na fa yeboon lu baree bari ci ay nit bokk ci ay xale yu jigéen yu jëmoon bitim réew libération mi nu ko yëgal nee na it yeneen ñaari gaal yu yeboon ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ay nit wallu nanu leen ca Maroc lum gàtt-gàtt journal bi nee na ñetti nit faatu nanu ci la ëpp loola ndax ab enquête yéeni bi nee na ubbi nañ ko ci fi ak muy sotti ña mucc ci gaal googa suux dellu na nañu ca gànjol ci seeni mbokk toog ni pat réseau national de quais de moom yëkkati kàddu ci yéeni kaay bi di enquête xamle ni teg nañu loxo junni ak juróomi téeméeri nit yu nu njort ne ñoo doon yóbbuwaate ca bitim réew jaar ci gaal yi sunu lamb moom jaaree ci jongante war a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé fësal ay secret wu mbëruk gi booba jamono stade di yëgle ni Aliou Cissé tànneef yu metti mi ngi